mbokk téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak kontaan di àddu ngeen ñu teewlu maa ngi taxaw ak sama su maam lees tey ñu bëgg a waxtaanee lamb yi nga xamante ne am na fi euh, ci samedi bi journée Fallou Ndiaye ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi ñu dugg ci waxtaan mi salaamaaleykum coach. <laughs> maaleykum salaam wasalaam mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm surtout ci déplacement bi ngeen déplacé wu ñëw fii ci te xam nga xaw naa sore ñoo ngi leen di nuyu baax di leen gërëm. Euh, jërëjëf alors su ñu bëgg a waxtaanee euh, journée euh, Fallou Ndiaye bi mm-hmm. déjà nan nga gisee journée Fallou Ndiaye bi ak amateurs yi ni nga xamante ne ñëwuñu wala supporters yi ni nga xamante ne mobilisation bi xaw na des nan nga ko gisee. <laughs> xam nga taxawoon nañ ci waxtaan am ci taxaw seetlu stade Iba Mar maa yow ñu toog ma am lu ma la ci waxoon ci athlète bu ne ak ki muy bëreel wax naa ne leen Cheikh Super Jamono daan na scorpion fii ci arène nationale bi. bis bi ndooy daan alliance biram te alliance biram daanaan la. dama bëggoon ñëwaat foofu mais mobilisation bi ñàkk mobilisation bi stade bi bëriwul woon nit foofu laa doon ñëwee ba pare balaa maa dugg ci décortique combat euh, xam nga mobilisation bi wax naa la ko. ne ko mbër day am gor. bu promoteur bi tëggee làmbam ku mel ne Fallou Ndiaye. yor entreprise boppam. yor ay moyens boppam yaakaaru ci kenn nit ñi di yaakaar fu muy fayee. ak fan lay jëlee somme d'argent bi muy fayee mbër yi. dëgg-dëgg wax naa la ne la bu fekkoon mbër yi sax dañ leen a jox ay bologu billet war nañoo jël seen xaalis wala ñu ne wala ñu ne fàll jox ma sama reliquat mën a feesal keroog stade bi bañ stade bi ni mu yaraaxee noonu ak ñoom parce que aussi mbër day am public. mbër boo koy tëgg aussi day am supporter public bi ñëw en masse. su ko defee bu ñu yëngalee ci kaw yow nga mën a bëri rëy ci suuf mais keroog dëgg-dëgg ko xool arène nationale bi. dépense ci fàllu dépensé. xaalis bi mu ci def somme d'argent bi mu ci def dëgg dëgg dëgg ku bëgg a làmb keroog supporters yi dëgg dëgg dëgg mobilisation ba des na ci des na ci ñuy bëri waaw ci ñuy bëri parce que aussi boo xoolee côté doomu dàngu ay supporters am des nañ bu dee yàlla rek moo tax ñuy wax doomu dàngu na gën a yokk waxtaan ak ay supporters am gën leen a mobiliser buñ ko fayatee xaalis mu dindi ci xaalis bi jënd ci ay billets yaa ngi dégg ngeer bu zap waxi nopp góoro sok waxi nopp booy franc waxi nopp Tyson 2 waxi nopp parce que ñoom ñëpp ku mobiliser woon ba mobiliser li war stade bi dana xajam dana fees dana far dana fuus te Fallou dana kontaan. dana kontaan alors mbokk yi ñu jëm ci euh, li nga xamante ne moom mooy combat yi fa jot am yaakaar naa combat yu neex la aussi. Mhm. ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Super Diamono ak bébé Bismi. Mhm. mu nekk combat boo xamante ne xeex xeex xeex xeex xeex nan gisee combat bi. Euh, xam nga Cheikh Super Diamono dafa nekk mi lourd dafa xaw a diis. Mhm. Eh, bi mu xoolee bébé bis bi ni mu toll waroon naa gën a yokk endurance am waaw ba a gën a yokk dem saalam wàññi dem saal bi gën a yokk endurance ba nga xam ne lu combat bi yàgg yàgg yàgg dana ko mën a maintenir ndax loolu ca préparation mbër ma lay nekk. mais damay bëre ku tuuti naa dem gën a yokk dool ndax bu ma ko jàppee combat bu jeex nee naa la danga fekk nit ñu riise ñoo xam ne yàgg a bëre man di bëre ba seen yaram nekk caas ba xam ne fii ba déwén buñ doon bëre duñ sonn coono moo ko jàpp ci combat te bébé bis mi yàgg a bëre ak mën a bëre bi mu bëre xool ko moo alliance biram ci arène nationale alliance biram daanaan la bi muy mujj ébamaat jël bu rëy la daan avec la manière yaa ngi dégg kon bu combat mel noonu amee nga jël genre mbër mel noonu jarul ngay dem di wuti maas liggéeyal normalement am am am endurance bu baax yor koor bu baax xam nga léegi nag daa daa daa di daa di daa di nag daa di nag indi contact bu intense xam nga loolu moo tax sinon bu dul contact boobu boo ko indiwul du xam nga bu ñu jógee foofu ñu jëm ci franc ak ki nga xamante ne moom mooy ngeer. Mhm. combat bi yàggul. Mhm. mën nañoo wax benn songoo la. Mhm. waaw xam nga maanaam mënuma yor franc. ah naa amee conscience yàlla rek moo tax ma wax moo mën ngeer. parce que nañ seetlu. ma ne la responsabilité bi ngeer am. dara daji ngeer am bàyyi xale boo xam ne ñëpp fi lañ ko bàyyi. parce bu ma toogee ne leen franc moo man dañ naan entraîneur la. xam nga nañ waxtaan wax dëgg ca la mais il faut nga indi dayoo ci combat bi parce que pour nit ñi bëgg koo seetaan yi dañ dañ ne kii kat li muy wax xëy na li ngeer li ngeer jël responsabilité wu kon ngeer am na fu mu teg combat bi mais Franc ngeer du combat. non du combat. parce que mënuma jox nit ku may tàggat favori. Mm-hmm. impossible parce que dañ naan li ma lim lim li mu ko yor moo tax mu koy wax mais pour indi suspense ci combat boobu. pour bëggoon dara jay journée Fallou Ndiaye bi neex moo taxoon ma ne la ngeer responsable bi am ba jël dëgg dëgg neex yàlla am na fu mu teg combat bi pour bëggoon a jaay combat bi. Mhm. mais du combat comme. non du combat du euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, doomu Dango. Mhm. mu jëm ak feu rouge. Mhm. ci kaw. comme d'habitude gauche bi nekk gauche boo xam ne saf sàpp la def. waaw doomu Dango feu rouge comme li ma la rek suñ taxaw seetlu bu njëkk nee naa la feu rouge moo moo xale yu ndaw yi ñooyam nañ bàyyi màggat ñu ruuse ñu ñuy jël ñi nga xam ne seen yaram daa màndi bëri. mokk ñor xomm duñu maye bi muy mbujj en 2000 ko daan ku en 2000 daan nga fekk gone gu ñor xomm am doole yor uppercut gauche boo xam ne wax naa la ko ne la keroog Iba Mar wax nee naa la doomu dàng ba muy mujjee bëri ñaq jëriñu la bëri Iba Mar da koo da koo dàq ba jot ko ni ko tëpp mu tëdd jaaxaan waaw kon donc euh, Farouz bi combat bi commencé bi ne arbitre bi mu sifflé salaamaaleykum daa daw jaayu. daw yooru. parce que xeex ba la doon moytu. est-ce boppam aussi foofu. non def na naa dem jël li li ma am xool fu ma am xool lu ma am lu ma am jël. Hmm. parce que dem na ba ci biir combat bi muy waaj a rocc ku fekk ne épicule ba ñëw na. xam nga booy sulee kuy génn. tombeeg épicule bi ñëw fu mu la dal ci menton say mbokk dañ la ba xelal xewer nga naan. te newoon naa la à 100 pour cent du xumala 90. waaw favori bi joxoon nga non pour cent aw ma sax lu may xaar yàlla parce ba ci kaw amuluma njariñ man maa ngi ba xam nga xar jéppan ba man loolu laay xool ci combat mhm. loolu laay toppee xale yi. Mhm. moo tax lu ma la wax ci làmb nga war ko bindu téere. dëgg la de waaw dama ne loon à 100 pour cent waxuma la sax 90 à 100 pour cent. Mhm. doomu dàngu mooy favori. doomu dàngu mm. mooy favori. Mm, mm, alors bu ñu jógee ci loolu ñu jëm ci combat bu mag bi nag. nga xamante ne Tyson de la ak ki nga xamante ne moom mooy Gora Sock. Mm-hmm. nan nga gisee combat boobu. Euh, combat bu am suspense la. combat bu waroon na gën a neex la. Euh, Tyson 2 kenn du ne ndaanaan la. mais état bi mu waroon indi compte Gora des na. préparation physique bi des na. xaw ba xam manque de récupération la par rapport ak ni mu doon préparé combat Eumeu Sène di di alterner séance d'entraînement yi peut-être moom moo tax état bi mu war a indi indiwu ko. Mm. man dese naa indi état ci man. yaa may dégg encore euh, Gora Sock mm-hmm. muy xale bu ma xam. Mm-hmm. muy xale bu ma miin. Mm-hmm. muy xale bu ma yàgg a mu yàgg ñëw ci man daan ma wax ay soxlaa ma ko ci jàppale. ba ci contre Cobra ci mujj. te bu ma juumul après bàyyi ma ñoon lañ teg. donc. ni mu bëree parce que booy bëree ku mel ne Tyson nga xam ne day nooju day bëtt nga nekk xale am doole nga taxaw Tyson taxaw ñu xool gabari bi nga yor nga bëre bëre bu salte bi noonu bëre bu xajam bi noonu téeyoo ci li ngay bëre da nga waroon a xeex ak moom indi jiyaat xaar Tyson doo jóg nga doo ko def kale bi mujjee entamé ca fin mais mais salaamaaleykum nga song songub suuf ci ponkal nee naa la ba tey. ponkol du dem. non ponkol du dem ba pare te heure buñ la fàqatee wala ñu nooju la. Tyson 2 nee naa la ñaari bëri la am. dalay nooju wala mu bëtt la laaj ko ko moom Tyson 2. Mm-hmm. dama xam xale yi. ba muy bëri bëri suuf. Tyson de da koo nooju première action bi. da koo nooju góor a daw laxas loxoom bi ci suuf. mais boo xoolee loxoom ba mu laxas te loxo te tànk Tyson 2 ba. Ah. baaraam yeeg triceps loxo bi yëpp ma nga ci suuf. kon quatre appuis am na fa. quatre leer na fa foofu ñu jugaat mais quatre appuis ni muy leere Malick côté bi mu féete moom muy arbitre bi. moo ko mën a gis ñeneen ñaari arbitre la mënuñu koo gis ndax côté ba ñu opposé moo tax parce que Malick il avait raison ndax action bi ci côté am la féete. moom ni mu koy mën a gisee Sitor nu koo gis beneen arbitre bële mënu koo gis beneen arbitre bële moom it dina joxe version am ndax version bi mu war a joxe mooy loxo góor a soog ma ngi koy gis moom. waaw. mais Malick côté bi mu féete woon ak ni action bi demee Malick Ngom arbitre moo ko gën a gis te y'avait quatre appuis moo taxoon mu mu alerté arbitre central bi. waaw loolu tax quatre appuis yooyu arbitre bi mu gisee euh, nee na nañ bëriwaat ndax kee tamit da ko wax ne ko loxo diw mi ngi ci mais boo xoolee quatre appuis am am na fa non bu dee yàlla rek ngay waxal te dëgg rek tax. moom quatre appuis am na fa. quatre appuis am na fa. waaw bi ñu biñu bi ñu jógewaatee foofu reprendre action bi. Mm-hmm. arbitre def ne na ngeen bëriwaat ndax comme kii mi ngi wax lii kii mi ngi wax lee. même chose la góor a defaat. waaw mais pourquoi. Hmm. boo amoon encadrement technique bu baax. Hmm. am préparateur physique bu baax. Hmm. am ku la war a bëriloo ku xam. Tyson 2 ni muy bëree. nga xam ne day nooju. day bëtt boo dawee yooru dalay nooju mu ngi fiile bopp bi. bi muy fiile bopp bopp bopp góor so kuy nooju. boo koy jël danga koy jël jël bu wóor. xeex ak moom jiyaat mu ñëw. la nga mujjee ca combat ba loolu nga ko war a njëkk daan a jël bu leer nañ waroo koo sax may tarafatal ay ni góor ko ko ëpp doole góor a ko ko gën a nekk xale góor soog moo war a ubbi hospitalité ci combat bi daan ko jël bu rek avec la manière deuxième action bi ko tay bi ko Tyson 2 noojoo ba fii la ko ba yokk bopp bi mhm. repaat na fa kaat appi bi mu repaatee dafa teg kaat yi ba pare yëkkati sunu goos bi la ma la wax koy xool de mhm. man làmb ji bëri ba ca suuf laay xool uh-huh. loolu tax lu ma wax doomu aadama yi di interprété di wax yoo xam ne da gis sax ku xamul làmb ab judoka naan la non kii li muy wax xamu ci dara. mais mais man li ma seetlu mooy Gora Sock mm-hmm. masse musculaire bi mu jël pour mm-hmm. lan la. Mm-hmm. parce que man bi mu ñëwee open press dama gis ni mu def ay quelques séquences. mais mu xaw a apat wala peut-être euh, kii bi nu mu tuddati comme ni ñu koy waxee souffle bi génnagul. ma ne ñi ma àndal mais Gora Sock lan moo tax muy xiixat. Euh, peut-être préparation physique bi baaxul ba pare kaw gi ëpp suuf si ba pare moom saa yu bëree ci ma Mandione laa ko seetloo mm. euh, moom Gora Sock saa yu bëree il faut mu rëpp ñaari tànk yi maanaam rëpp yomb na ko mm. ba pare mu yokk kaw gi par rapport ak suuf si man pour man erreur la Cheikh mm-hmm. nee naa la ponkal heure bu dawee di song nay jàpp ngemb nay jàpp loxo droitam Gora Sock loxo góos bi la waroon def self defence di di xeex ak droite xaar Tyson 2 ñëw mu éliminer loxo bi jàpp ko nam ko mujjee daane looloo doon kele combat bi maanaam boo amoon ay techniciens yoo xam ne tu es bien préparé. Hmm. mais xam nga li nit ki li ñuy wax rek moom bi muy commencé ko combat bi ba wax ma moom woo na ma ne am naa combat. waaw wax naa ko na daan def ba ñëw école ba na fa jaar. Hmm. mu waatal ma ne ma incha allahu bi dana ñëw école ba. Hmm. gisuma ko. yaa ngi dégg mais déggante nañ ci téléphone. waxtaan nañ ci aussi téléphone. bu ñëwoon. combat bi dana gën demee neneen nu may nii. waaw loxo droite bi daa war a jàpp ci bu buñ la fàqatee sa loxo boobu moo lay empêché nga bañ a def kat appi nee naa la ponkal mu dem féete suuf buy rëpp buy jóg yàlla seede na ne faaw mu teg kat appi doo ko jóg. teg kat appi pour. Euh, jóg voilà léegi ñu ñëw ci ñi nga xamante ne ku mel ni euh, doomu dàngu. Mhm. fu mu jëm ak ku muy jël. Euh, doomu dàngu li ma la wax ci moom na gën a mobiliser supporter am. waaw bu weesoo loolu ban adversaire nga koy proposé. non des na am na yoon. moo doomu dàngu François Émile Gomis waxtaan nañ ko woo nañ ko contacter ko doomu dàngu bañ nee ko rëll bu Lansar. waaw woo nañ ko mook François ñu bañ. kon François nga may wax fi mu eh, ñë. non déggal ma ay adversaire de taille lañ war ñoo bañ a bërante seen biir man qualité bëre bi laa lay wax ak dayo yi ñu war a tollool ngeer franc du combat. du combat. doomu dàngu Farouz da dul combat. man làmb laa lay wax. Mm-hmm. combat day nekk combat njëriñ démb. nga ne ñaar ñii tey. kii day dóor kii day bëre. kii bu dóoree kii day xeex. loolu mooy combat. kon yow ak euh, doomu dangu nga gis. Franc doomu dangu combat la. wax nañ ko Cobra combat la lànk. Franc ne ko leeru combat la. loolu la doomu dangu aussi nee la. Caradaas boo gis. am na cinq adversaires potentiels yoo xam ne nit ñi buñ jéem a jéggi sart yi. donc doomu dangu ne ko réel. doomu dangu ne ko réel doomu dàmb doomu dàmb libidoor bu grand combat la mais mais pourquoi ku ñu wax rek nga nañ ma jox samay morom wala nañ ma jox ci kaw génération bu ne dafa am caradaas bu mu tolloon génération ñoom Sa Thiès mhm. da ngay lim Sa Thiès mhm. lim Boña lim Ama Balde mhm. lim Guy gi loolu génération dina at génération boo dem am na cinq athlètes yoo xam ne bu ñu leen croisé seen biir panacé leen war na nañoo mën a bërante seen biir muy làmb. Tyson 2 fu mu jëm. Tyson 2 am nay adversaire boo xoolee ku naqaree bëree la wax naa la ko mhm. ku mën a bëree la ku mën a xeex mhm. mais combat bii moo góor a soog yëpp dañ cee gaaw a sonn. Mhm. non man dama gis ni préparation Tyson 2 wax naa ko d'ailleurs bi ñu toogee ma ne ko lan moo tax indi état bi moom it kenn xamul lu mu indi xaw ma dafa xeeb góor a soog xaw ma. non dañoo noppaluwul récupération dafay baax ci mbër athlète buy récupérer minimum boo demee ci sport de combat nga dem salle dix heures ñëw ngoon nga dem contact. te doo nelaw guddi gi nelaw yu récupération au moins na mat 10 de temps teel tëdd xale nga da ngay teel a tëdd sa yax yi mën a am temps de récupération bu baax mais yow mënoo guddee tëdd dak ci coono yi mett sa yaram nekk ci palais Hissène wala nga nekk fenn ba 2 heures matin wala 3 heures doo ko tëdd bu 10 heures jotee nga yeewaat doo nelaw sax 5 heures temps yi mat nga bëggoon def pendant ñaata mois Tyson ko tëgg pourquoi mënoo ko tëgg Tyson 2 doomu dàng góor a soog doomu dàng pourquoi mënoo ko tëgg dañoo tolloo génération góor a soog franc woo doomu dàngoo Tyson 2 yëpp mais. kenn defagul sa morom kenn rawagul. dem bàyyi sa maa ko jiitu ci làmb rek ngay dégg wala maa ko ëppi combat. mais yow boo jéggee siraat naan damay wut leen lu gën a diis lu gën a diis loolu daq laa bëre ëpp la doole gën laa mën a xeex yaram sa yaram gën a màndi bëre da ngay dem ñu daan la rek ñu naan la defar waatal la jekkal da ngay jël say morom daan leen ba ñu jeex takk mhm. ba nga xam ne sa génération morom jeex nañ nga doog a jàll ci beneen kon si je comprends bien euh, euh, doom euh, ki nga xamante ne mooy Tyson 2. Mhm. CNG dana ci am yoon gars yi danañu demaat recours pour jéem a xool ku daan parce que quatre appuis bi nga wax. non xam nga làmba tëri di. Hmm. te nee naa chaque fois làmba ni mel. action yi mel noonu du duñu wax lu may exprimer wu wax suñu xalaat ci loolu. wax na li ñu gis lii la. Hmm. man lu ma gis danaa ko wax. Hmm. man lu ma gis ci làmb danaa ko wax. te li may wax daf may leer na man lii gis naa ko mhm. lu ma gisul du ma ci wax. loolu nga ma defal combat euh, Boy Niang ak ki nga xamante ne moom mooy Lac de bi chute bi amee yaa ma njëkk wax ni quatre appuis am na fees am na. yàlla moo ci dëgg. bu quatre appuis amul bu ko Lac de defoon ma ne Lac de ñu ci bari neen damaa dëkkal Lac de Guiers wala damaa xam Lac ko Lac de Guiers mosuma koo gis. mosuma koo teg ba xawuma sax man. Mhm. wala ma xamee via par internet bee tax. Mhm. Boy Niang pareil nu may nu may nu may faralee kenn. li ci des nag. liggéeyu CNG la. parce que CNG aussi moom mooy càmbar loolu. am nañ ay cassette am nañ ay video te ay doomu aadama lañ comme ñun. liggéey boobu ñoom ñoo ko war a def. journée Fallou Ndiaye bi aussi li ma ci metti Mama Lamine ak Jokkel. waaw ça fait mal au cœur nag ci benn côté. parce que suspense su mel noonu maam Mama Lamine ak gonay lamsaar yi ak lamsaar ni mu mel ak lamsaar ni ñu bëggee ma Lamine. ak fi ñu ko teg fañ teg Siteu lañ ko teg. muy xale bu bëriwul caaxaan wax naa la ko. xale bu ñeme li muy def te ndox du bàyyi yoonam. la mu gëm ak la mu man ak la mu bëgg def da koy exploité ba kenn du ko téye mais nag Jokal aussi nit ki boo feebaree wala ngay préparer combat semaine combat mujj bi ay contacts yi intense mën na la cee bañ a fekk. parce que loo amul woon dootoo ko amaat. non loo amul woon ci 4 mois yi passé wala 3 mois yi passé munoo ko wut ci 2 jours wala 3 jours wala une semaine ba à 2 jours du combat nga yónnee na damaa gaañu. CNG aussi na ci jël ay mesures mbër mu gaañoo yi nañ la dugal ci oto ñëw ba ci docteur ba nekk ca CNG mu xool la ba xam gaañu nga doog a valider euh, gaañu gaañu boobu. parce que mbër mën na toog këram rek te docteur li tax li tax wax waxtaan am solo docteur du xeebal moroomu docteuram la docteur ba bind. dëgg la de. docteur. waaw du xeebal moroomu docteuram la docteur ba bind. maanaam maanaam tàppale mën naa am. si ma que man Jokal. mënuma gëm ne gaañu gaañu bi metti na metti boo xam ne war na ko mën a tee bëri waaw peut na ko daal mais muñ te metti parce que mënoo def semaine combat semaine combat ba mu des deux jours xawma trois jours nga naan dag ci contact contact bu intense bay gaañu foofu kay liggéey bu oyof nga war a liggéey defar say finition defar say quelques réglages léegi nag di xaar yàlla ñëw bu combat bi ñëwee boo ci amee ndam ñu xam am nga mais bu fekkee da ngaa dem say mbokk ñu ne la boo ko bëree daanu nga yónnee ordonnance na damaa gaañu kooku amul sens <laughs> euh, maa ngi gërëm suma rakk Cheikh kooku du ma ko ñàkk bañ a gërëm depuis maa ngi gërëm grand mbay wàdd depuis Munich moom mook sama rakk Cheikh ñoo nekk El Hadj Wade Ousmane Wade di gërëm sama rakk Khady Ndiaye sama sœur bu jigéen depuis München di gërëm Demba Timtimol dama am partenariat ak waa Allemagne Demba Diallo nekk suma mbër nekk suma rakk nekk suma xarit ñu naan ko Timtimol ma am partenariat Allemagne boo xam ne tous les deux mois day dem foofu di entraîner dem na fa deux mois ma ne ko dellu siwaatal ñoo am loo liggéey fi Sénégal delluwaat na pour deux mois parce que bëgguma partenariat bi yàqu bëgguma mbër di dem di toog visa boo ko xasee ba am foo ko dugalaatee ñu mayaat la fa mm-hmm. liñ naan la foo génn tegaat fa sab loxo waaw parce que partenariat bi bu ko yàqee ci salle ba ñu ñuy na ñun daf ñu daf ñu dul arrangé mm-hmm. ñi ngi gërëm waa salle bi yëpp depuis Allemagne di gërëm ña fa nekk entraîneur ya fa nekk di ko préparé ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm sant DG di sant waa Equivox ak alaaji bi nga xam ne mooy suñu jinney cameraman jaajëf yow <laughs> man jalo amul problème ni la may dem voilà mbokki téléspectateurs yi li lañ leen indiloon ci li nga xamante ne mooy journée Fallou Ndiaye gis ngeen ni nga xamante ne coach taxaw na ci wax na ci ah, ñu leen di sant yéen it bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje très bientôt ci beneen numéro peace